Restez toujours informés sur SeneInfo. xibaar yi ci bile jamono. Restez toujours informés sur SeneInfo. xibaar yi ci bile jamono. fii la mburu bi tàngee fii lay xayam xayame xibaar yile dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër leer ci yile jamono. internetu seneinfo point net seneinfo international jërë ngeen jëf di am mbégte ak contentement di jàkkaarloowaat eh, ak yenn ci seen yoru yoru seneinfo ba tey duma ci wet benn yoon ma di ci ànd ak sama naataango yi di buur siini Kumba Ndoffène Diouf ak kii di Kalidou Ba xam naa laata ma sori dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñu daal di teewax yéen seeni xibaaru bés bi. Kalidou ma bàyyi la mu nuyoo. waaw ah, maa ngi lay fay jërëjëf Asel maa ngi lay fay ah, di nuyu sama naataango buur mhm. ah, di nuyu seen internet yi nga xam ne saa su ne si heure bii si yor yor bi ñu ngi suivre si seen yor yor si seneinfo point net ak international di am yaakaar ni waxtaan bi dina am solo. jërëjëf Kalidou Buur xam naa dama lay bàyyi nga nuyoo rek laata ñuy jàll ci xibaaru bés bi. maaleykum salaam soxna Astel maa ngi lay nuyu di nuyu sama naataango Kalidou di nuyu mbokku internet yi nga xam ne saa su ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci suñu différentes plateformes di leen wax juma mubarak mm-hmm. di amaat kon rek mbégte bu baax di leen digtal yor yor seen info. jërë ngeen jëf ci loolu xam naa tey dañuy jàll ci sept points yu ñu leen di indil. ci seen yor-yoru Sene Info si loolu laata ñuy commencé rek xam naa dañuy daal di jaale kii di maître Seye nekk avocat boo xam te ni nekkoon na nit ku am solo si biir réew mi moom nag démb la génne àdduna tey nag la ñu waroon inhumé koram fële ca hôpital principal suñ su jugee nag dinañ ko dénk boromam. ca tuubaa si loolu ñu di ko jaale ay mbokkam di ko jaale Sénégal gi yépp si xibaar yi nag xam naa dañuy dikk ak yenn si conférence de presse bi nga xam ne kii di Bougane Gueye dani amaloon na ko démb daal di ñëwaat si affaire 98 milliards yi. suñu jógee foofu ñu ñëw si waaye askan wi nga xam ne amaloon nañu ab conférence de presse démb Ousmane Sonko nag daal di si yëkkati ay kàddu di woote ab benn ndaje bi ñuy amal ñoom ñëpp si fépp si 14 régions yëpp si Sénégal xam naa loolu yëpp dinañ si gën a indi ay yaatal ba tey ñu continuer rek ak foto yi nga xam ne nekk na ay photo kii di. Serigne Touba ñu doon ko jaay def ko vente aux enchères fële ca Lyon ñu gis ne benn communauté mouride ñoo daal di ko jënd mu nekk xibaar bu neex ba tey rek ñu continuer ak conseil des ministres bi ñu amaloon barki démb ci 8 mars bi ak décision yi nga xamante ne nii jot nañ ko faa jël. ñu continuer ba tey ak audition kii di Cheikh Hadjibou Soumaré ginnaaw bu mu yëkkatee ay kàddu. daal di ko jëmalee si Macky Sall nekk ab lettre boo xamante ne nii nag ay laaj la ci defoon doon xaar ku ko tontu waaye ci loolu tamit daal nañ di ko ci téye ni ki démb dinañ ci indi ay leeral yu gën a yaatu. ba tey ñu ñëw ak yenn ci collectif de victimes des événements de mars yi nga xam ne saisir nañu cour d'appel pour CEDEAO ngir yoon. mën a def liggéeyam ñu continuer rek ak Guy Marius Sagna mi nga xam ne mujjee naa déposé boobu les lettres de protestation fële ca ambassade bu Tunisie ñu indi ci ay leeral ñu daal di jeexalee ak wàllum sport si loolu dinañ ñëw si ay prestations yi nga xamante ne ni kii di Kalidou Koulibaly jot na ko amal ak kii di Malick Thiaw ñu jeexalee ko rek si mbirum sport ba tey daal di wax si match bi nga xam suba lay daw si diggante Sénégal ak euh, Gambie. ba tey euh, xam naa loolu yëpp dinañ ci ñëwaat waaye dañuy daal di tàmbali waxtaan bi moom Bougane Gueye Dany ba tey mu yëkkati ay kàddu rek di laajte ba xam ndax Sénégal kenn amatu fi droit poser ay question si loolu xam naa Kalidou dama lay bàyyi nga gën ñu see indil ay yaatal ñu daal di continuer. waaw jërëjëf Asel euh, jërëjëf naa Dambo waaw xam naa comme ni nga ko waxee moom njiital gën sa bopp di Bougane Gueye Dany nekk candidat tamit ci élection présidentielle février 2024 moom def na ay accusation accusation yoo xam daal mën na jàpp ni lu tolloog quatre-vingt-dix-huit milliards yoo xam nee na ki nga xam ne mooy Mansour Faye te jamono bi mu nekkee ministre de transports nee na nee na moom si boppam def lu moom ak ki nga xam ne mooy mooy magam di président Macky Sall ndax magam la ah moom nag jàpp na ni xaalis boobu dafa jëmoon si wàllu plan désenclavement neen nañ dugal ci compte boo xam ne mu ngi tudd NFG neen nañ dugal xaalis ci compte boo xam ne NFG la euh, ki nga xam ne mooy Macky Sall dafa daal di signé garantie bi le 6 janvier 2022 mais jàpp na ni euh, procédure normale la mais procédure boo xam ne seen loin d'être normal ne dafa illégal mu loolu la dafa illégal parce que euh, rafetlu li nga xam ne mooy règle transparence neen li si xam ne moo si gën a grave sax muy xaalis bi ñu ko déposé banque dañ ko déposé DAT maanaam dépôt dépôt dépôt euh, dépôt à terme lañ ko def maanaam dañu def ci compte privé boo xam ne chaque mois di see gagné di si nga am intérêt mu nekk loo xam ne jàpp na luubal la loo xam ni Mansour Faye war na ko leeral Sénégalais man jàpp naa ne nag bu bugaan c'est l'homme politique qui parle ndax élection yi ku ni soxla na wane sa bopp wane ne yow da nekk si jege askan yi comme ni ko Sonko di defee ndax tamit loolu am na ñu mu jik comme ñu mel ne Sonko révélation yu mel noonu peut-être su ko defee waaye li si solo rek mooy yàlla na fekk accusation yi muy yi mooy yi muy def am na si ay preuve hmm. waaw xam naa dama bàyyi sama naatam mu daal développé waaw ba tey moom Bougane sax mu ngi doon naan ne waxatul waxi preuve mu ngi naan ne moom am na preuve mais si démb am na benn journaliste tamit bu ko jot laaj lan moo tax demul porté ji boobu la plainte mais moom nee na day ci xalaat lu ci mel ni ay yoon daal daal di ci am si loolu xam naa bu dama lay bàyyi nga am loo ci indi waaw man de mbir moomu daanaka sama naataango Kalidou sax pour man wax na ci jàpp naa ne wax na ci l'essentiel li nga xam ne moo am léegi nag li des mooy effectivement est-ce que maanaam dafa am fu sukkandiku ba ba wax yi lay wax parce que tam quoi qu'on puisse gis naa ne lu garaaw la. ah bëri dafa milliard ay yu bëree bëri la comme être tey bu ko waxee mën na am daa am sukkandiku. ba wax li ni mel léegi nag ni nga xam ne justice. yenn saa peut être noonu lay auto saisir si yenn dossiers yi yaakaar naa dossier bi jar na auto saisir de man. Ah, nañ ci auto saisir peut être ñu xool euh, du ñàkkit bu fekkee ne ah. jar na ñu woo ki nga xam ne moom mooy bugaan peut être dinañ ko woo comme ni ñu woowee comme ni ñu woowee ak Ibou Soumaré bi nga xam ne tudd dinañ ñëw si mbiram dinañ ñëw si moom bi nga xam ne tudd nañ ko en tout cas am daf nañ ci mën dore ni nga ko waxee mën naa njiital euh, njiital gëm sa bopp nekkit candidat ci élection présidentielle wax nañ dañu nekk tam si contexte boo xam ne gars yi nekk candidat yëpp sono sa bopp nañ wane seen bopp dinañ def loo xam ne dinañ leen dégg xamuñ nag ndax peut-être si dynamique boobu la nekk ba tax li muy def peut-être dafa preuve en tout cas l'avenir nous en dira plus ah, mais même astu si loolu yaakaar naa ne tamit dafa prudent parce que dafa ragal ni bukki bi mat Hadjibou euh, Soumaré mat ak mm-hmm. <laughs> ñu voilà ñu saisir que daal di def comme comme euh, comme ni nga def euh, nga xam ne mooy Hadjibou Soumaré Anana ñëw sax mooy ñu def garda bi ñu voilà ñu yóbbu si yoon on ne sait jamais mun na sax perte ay droit parce que peut être si loolu tamit def si président moo tax peut être de mun def benn plainte boo xam ne def si pour Mansour Mansour bu defee plainte boo def quoi rek pour Sénégal ndax indal Sénégal ba tey xam naa foofu la ñuy jaaree rek ñëwaale si mbirum kii di Hadjibou Soumaré parce que ku si mel ni Bougane si moom la ñu jugee moom ay affaire 98 milliards la te moom sax si conférence de presse dafa taxaw mu ne Mansour Faye na ko wax 98 milliards yooyu fu mu nekk te bu ñu jugee si 98 milliards moom Hadjibou Soumaré 7 milliards 7,9 milliards lay laaj Macky Sall ndax da ko jox kii di Marine Le Pen si loolu nag démb yoon convoqué woon na ko demoon na wuyu ji. mais bu ñu xoolee tamit dañ ko mujjee tëye ba boobu ba foofu la fanaan xam naa fi ak ci kanam ñàkkul dinañ ci am yeneen i xibaar buur ma bàyyi la nga yaatal si côté boobu. soxna Asel comme ni nga ko waxee Cheikh euh, Agibou Soumaré di homme d'état bu mag nekkoon fii li nga xam ne moom mooy euh, premier ministre su Abdoulaye Wade gannaaw nag euh, bi mu defee kon wax jooju parce que mu mënuñ ko jàppee accu accusation quoi mm-hmm. moom jàppam accusation parce que interrogation bu mu def la. Euh, aux allures d'accusation comme accusation indirecte quoi waaw ah, ah, bi loolu amee gis nañ ne euh, woolu nañ ko ñëpp ñu ngi ko doon xaar nag wala boog bett woote bi bettewul boog pour man woote bi bettu ma li nga ko woo en fait euh, sécurité urbaine bettu ma quoi biñ ko woowee tamit démb gis nañ dem na la mu waxoon mooy dafa def ab lettre boo xam ne lettre ouverte la maanaam ab lettre am bu mu bind ne njiitu réew Macky Sall kon la ko jagleel di ko ca laaj ay question nag question bi nga xam ne rek moo gën a attiré attention yëpp mooy indi coow li moom mooy fi koy laajee ndax moom dafa jébbal ay koppar lu toll ci douze millions d'euros ñu xayma ko sept virgule neuf milliards francs CFA muy naan ndax dafa jébbal ab personnalité politique française boo xam ne dafa am ak moom audience xel yëpp jëm nag ci li nga xam ne moom mooy Marine Le Pen bi nga xam ne kon ci janvier bi ñëwoon amoon na audience ak Macky Sall ñëwoon na fi gannaaw si loolu nag euh, comme nu ñu wax rek sûreté urbaine euh, woolu ko ba ñu demee it li nga xam ne liir nañ ko ci peresu tey bi nee nañ biñ ko laajee moom daal xamal na leen euh, carrément ne moom accusé wul deful accusé il n'est pas dans l'accusation affirmé wul daal il n'est pas dans l'affirmation il est dans le questionnement il dafa laaj interrogation la daf leen euh, laaj te it euh, nee aussi ci homme politique la nekk président mouvement politique mu ngi xaar njiit réew mi indil ko tontu ci loolu da ko bi biñ ko laajee it ci li nga xam ne kon moom mooy euh, moom mooy euh, sept virgule neuf milliards yi mu wax euh, daf ne hypothèse d'école la réponse boobu la jox am la ab hypothèse d'école la loolu la fa xamle fi mu nekk nii daal mooy li ñu mën a jàpp daal en tout cas garde nañ ko à vue kon te il est placé en garde à vue nañ ko ñuy xaar ni nag peut-être ci fan yi wala ci waxtu yi sax nan la wane di mu jëng gëtam ci mbir moomu la Mhm. ci mbir moomu ba tey damay bàyyi Kalidou nga am loo ñu ci indal rek laata ñuy euh, continuer. waaw ni ko waxee Asel suñu naataangoo Coumba Ndoffène mel na démb Hadjibou Soumaré lettre bi mu bind leen mooy euh, lettre ouverte juróom na coow d'ailleurs sax euh, dañ ko mujjee vraiment woo ci sécurité urbaine pour ñu daal di ko déglu démb gis nañ aussi que daal nañu placé garde à vue garde à vue garde à vue koy indi mooy mesure contraignante boo xam ne police judiciaire bi soo amee si ko ki nga xam ne mooy procureur su ko saisiré mun na ko euh, gannaaw bi interrogatoire bi jeexee parce que maître Alam Dieng d'ailleurs sax mooy avocat bi nee na interrogatoire bi diire na environ dix heures ba treize heures bi mu paree ñu daal di après ki xam ne moo def interrogatoire de police judiciaire bi ñu ni ko na patienté ñu xaar procureur parce que procureur moo mun dogal si daal pour ñu bàyyi ko ñu relâché ko mm-hmm. procureur notifié leen que dañ koy def garde à vue dem mu jikko foofu mais vingt-quatre heures lay diire euh, ki nga xam ne mooy euh, mooy euh, garde à vue mais mun dem ba cent douze heures na dem ba cent douze heures voilà mesure boo xam ne dañ koy def parce que soo defee infraction dañ jàpp ni suñu téye garde à vue c'est pour ñu am suffisamment de preuve ay pièces ok yoo xam ne daa wala nga def aveu nga wax ne carrément di moom jox information bi wala par exemple nga ni par exemple nga ni bàyyi naa lépp ci suuf dama jégal li mu jum de bonne foi donc peut-être mesure kii boo xam ne mesure la boo xam ne pour ñu am suffisamment de preuve moo tax ñu téye moom nag jàpp nañu ko am expérience la ndax jaar na Union économique de l'Ouest africaine UEMOA UEMOA jaar na fa nekk na premier ministre donc peut-être am na réseau wala information yi nga xam ne peut-être sa gars mën nañu bañ am ah, ah. mais en tout cas ci lettre bi mu bind jàpp naa ni amul accusation voilà donte ni comme su waxee rek président de la République jàpp na institution la donc peut-être loolu mënul dugg ci cadre ah voilà en tout cas comme ni ko démb déglu naa suñu avocat bi sax ah, na euh, li nga xam ni xaar na peut être mën nañu ko toppee muy chef de l' ah. te xam ne code pénal bi si article L quatre vingt mhm. ah dafa daal di wax ni ki nga xam ne par exemple dafa dafa li mu def ni nga jàpp offense chef de l' état mën na am lu tolloo six mois sursis mu dem ba deux ans ñu alamaan ko cent mille jëm un million mhm. euh, kii mais en tout cas lettre bi gis na si lu ne accusation mais en tout cas jàpp naa ni daal euh, ak citoyen sénégalais koo xam ne amul droit def interrogation mhm. mais li nga ko ñaan rek mooy ne fekk mu am ay preuve suffisamment ndax président tamit ak lu mu di wax tamit mhm. euh, président kii la quoi maanaam institution mhm. loolu daal laay doon wax. ci loolu sax ci loolu man maa ngi jàpp ne sax maanaam ci coow loolu. pour man bu fekkoon ne tuddul tuddul montant. waaw benn man exact man jàpp naa ne peut-être affaire yi na ma yegg si fii. parce que à chaque fois da ngay nangam nangam njiitu di ko wax di ko kii. waaw mais man pour man le mu tudd montant daal loolu moom pour man loolu moo tax mbir mi yegg si fii quoi le fait que mu montant xam nga boo xam ne nii daf ci bu nangam ndax da joxe nangam man loolu la yaakaar ne sax moo tax mbir mi yegg fii quoi. te surtout moom moom fonctionnaire l'État la en yoroon na ay post ci sous région de ci international donc jàpp ne lu mel noonu su ko waxee. peut-être war nañu parce que du n'importe qui quoi. effectivement am fekkoon effectivement effectivement mais <laughs> jërë ngeen jëf si yooyu lay yaatal xam naa ba tey dañuy continuer ak conférence de presse bi nga xam ne waaye Yewwi Askan Wi amaloon nañ ko démb si loolu nag moom Ousmane Sonko mu daal di yëkkati ay kàddu di xam ne ne dinañu woote beneen ndaje bi nga xam ne nañ ko amal ñoom di woo képp koy xamante ne nii bokk na ci moom bokk na ci Ousmane Sonko di ko woo si boobu leen ndaje bi ñuy amal. 14 ak le 15 février su ma le 15 mars su ma juumulee si ndaje boobu nag mu ne avec ou sans autorisation ñoom dinañ def boobu leen ndaje euh, Kalidou lan nga ñu mën a wax si conférence de presse bi nga xam ne Ousmane sonk amaloon na ko démb. démb ki nga xam ne mooy waa Yewwi Askan Wi démb gis nañu def nañu démb seen euh, conférence de presse gis nañu nag euh, leader yëpp ñëwoon nañ. ñoom nag nee nañu annoncé nañu li nga xam ne mooy méga meeting boo xam ne day am euh, comme ni ko waxee le 14 mars. giga meeting <laughs> nee nañu woote woon nañu méga meeting bii nii giga meeting la soxla. meeting la ñu woote boo xam ne di nga koy def 14 mars ak ak marché boo xam ne jàpp nañu di koy def si 46 département boo xam ne day am 15 mars ëllëg sa. te te nee na surtout ki nga xam ne mooy leader njiital Pastef Ousmane Sonko moom jàpp na ni joxul autorisation ay militants ñu manifester sans autorisation. Mm-hmm. te fekkee dafa am ko xam ne dañu koy jël si moom lay doon. bon jàpp naa nag Sénégal réewu droit la am na norme looy def nañ ko jaar si yoon. su loolu yoon joxoon nag peut après nga xool noo mënti def mais en tout cas. mais mais Sonko moom mu ngi naan ne. Euh, pour pour amal ab manifestation soxlawul autorisation mais da leen di yëgal kàddu yooyu la fa jot yëkkati tamit. waaw man li nga xam jot naa dégg moo ni sans autorisation dem ne manifester jox naa leen digal. Mhm. jàpp naa ni li nga xam ne nag ñeneen moo tax ñu manifester mooy jàpp na ni justice amul indépendance mhm. indépendance justice comme ça dañ jiital mu ngi jiital. Mhm. ak ñi nga xam ne seen ñooñu lañ suñu bëggee manifester ñu tere leen ak ñi nga xam ne dugal na leen prison di ñu bare plus de ay ñu fexe daal vraiment vraiment ba Macky Sall tamit leeral peut-être jàpp nañu ni si troisième mandat bi aussi bokk na si si doléance man nag jàpp naa ni Sénégal bu ñu am droit exprimer ses libertés ndax Sénégal réewu démocratie la waaye tamit état su amul état su amul droit du taxaw su amul ay mm. loi ak ay normes jàpp mm. naa li ñu war a njëkk a def pare mooy daañu jël benn lettre déposer que fi ñu par déposer ñu mm. xaar fekkee autorisé nañu ñu def fekk aujourd'hui tamit peut-être mën nañu dikkee sax vraiment mën naa comprendre mais waruñu par exemple ñu ni sans autorisation ni koy def parce que Sénégal tamit donte ne ñoo am nañu daayoo ay leader lañ waloo bari toppal Sénégal parce que quand même réali yi askan wi tamit suñu force politique réalité politique la ci élection yi passé wane nañ ci bi assemblée c'est la première fois sax assemblée que ñu am témoin aussi askan jàpp naa ne tamit ñu am base électorale waaye daal li gën daal mooy ñu daal réew mi ñi nga nekk ci kaw nag maa man li ne de ñaan ñi ci kaw yor nguur gi mooy nañu xaw yoromal tuuti waaw yi nañu xaw yoromal tuuti daal mais ñi ne opposition bi tamit nañu respecté tamit les règles effectivement les règles ndax réew tamit su amoon droit institution du taxaw te institution su taxawul réew mi si gudd la jëm mm-hmm. voilà réew mi réew mi daal dina man daal loolu laa doon dëgg la si loolu xanaa ñu di si xaar di ñaan jàmm rek ba tey ndaxte jàmm moom si loolu lépp xaj gis nañu à chaque fois manifestation am presque ñëppay tiit te événement mars yaa ngi fii lu nekk jot na si jàll si loolu buur ma bàyyi la nga am lu ñu ci indi. comme rek euh, li nga xam ne sama naataango wax na ko ci li ma si dolli mooy man daal damaa gis ne euh, Ousmane euh, Sonko ndax kooku bis bi booy gis moom moom moo ci gën a fës te yenn déclaration à chaque ci moom lañ koy déggee damaa gis logique bi mu nekk ak dynamique bi moom jógu si maanaam logique gu guerre ak. Euh, garsa garsa garsa garsa boobu <laughs> moom daal ba léegi moom lay gën a wane quoi day gis ne daal à chaque fois euh, discours boobu lay indi benn discours guerrier discours boo xam ne daal euh, danaan day day day day def benn rapport de force ak li nga xam ne moom mooy état bi te it foofu wax nga ci lu am solo maanaam tey état état tey day am nu mel day am taxawaay boo xam ne état da koy am te peut-être benn nit donte nangul nañ ko citoyen sénégalais nangul nañ ne ko manifestation euh, dafa war a am comme donte da ngay yëglu da ngay kii mais tey mën nga yëglu ñu gis ne lii bu amee trouble à l'ordre public mën naa am yéen mel mën naa am sànq maag asu asu ñu ngi soon waxtaan loolu dëgg na quoi mën nga manifester parce que droit la droit démocratie la mais tey tam bu manifestation yu bëree lool lool lool lool mën na indi jafe-jafe ci wàllu déplacement bi mën na indi jafe-jafe ni ñu liggéey ak yooyu euh, tey maanaam nit mën na dem hôpital ak affaire yooyu teg même man day man day loolu am naa ci benn jour benn benn cas boo ne dama ko fekkee damaa nekkoon ci benn genre comme ma manifestation yooyu nii te du woon sax comme manifestation ay manifesté maanaam benn mouvement la woon quoi am benn benn kilifa bu doon ñëw ñu ànd si noonu mais ni ñuy demee si yoon bi am benn oto bu yëpp malade nekk suñu nekk suñu ginnaaw quoi ndeysaan yaa ngi gis mu ngi taxaw mu ngi bëgg a dem mm-hmm. finalement ñu mag benn gars ñoom mujjee taxaw jëm ko fraye chemin Euh, pour sax dafa mujjee sax wax ci télé bi a dugg si koñ yi situation yi mel noonu kon dafa dafa dafa dafa am solo ñu ko dafa am ñu koy sóoraale quoi ñu koy bàyyi xel ñi nga xam ne ndeysaan seen après ñëw ci mujjee loolu dëgg la mais comme ni nga ko waxee rek euh, yenn saa yi tam nañuy bàyyi xel ñeneen ñi buñ aussi nay def concession yenn saa yi waaw état tam kon du ne jiite rek maa yor force bi mi ñu damay réprimer kon nag affaire bi deux côtés yëpp la war a doon kon état waaw état war di euh, yenn saa bu utiliser bâton yenn saa bu utiliser carotte mhm. opposition tam yenn saa tam ñuy xam raison garder quoi il faut garder nekk na à chaque fois rek dañu war a jóg waaw yenn saa tam ñuy sotti tuuti ndox di bañ a tàngal tàngal rek parce que comme ni ko waxee rek dëkk bi dafay sotti essence <laughs> dafay sotti essence parce que Sénégal dañoo nekk tey ci ben ci benn dynamique boo xam ne ci benn peut-être ci benn ëllëg ñuy yaakaar ëllëg ñuy yaakaar benn ëllëg bu bu bu yàññi ak euh, maanaam ressources yi nga xam ne gis nañ ko fi kon nag euh, lépp loo xam ne rek day day indi ay euh, coow day indi tension rek pour man dañ ko war a teg ci suuf te ñuy jiital jàmm ñuy jiital discours bi indi jàmm quoi. jàmm si la yëpp waaw waaw ne comme ni ko waxee maanaam dafa am ñoo xam ne dina bàyyi xel mooy ñi nga xam ne marché ñu seen yoon nekk si ñu liggéey ak maa li dem hôpital xam ne su marché amee suñu bloqué ñooñu tamit ñooñu tamit seen bakkan seen seen si xott beneen bi aussi mooy yaay yi nga xam ne dañoo xëy 4 heures du matin di duggi marché di wut jën ah ci d'ailleurs sax Sénégal dafa métti am na ñoo xam ne xalaat suñu xëyee ñoo dañoo liggéey bi 11 heures mhm. ñu daal di envoyé seen kër des fois fu ñu togg ceebu jën ñu togg a bàyyi xel mhm. yaay yi nga xam ne 4 heures dañoo dugg si marché deng deng waaw waaw ak élèves yi jàng ñooñu seen nekk si marché parce que mhm. parfois su yoon yi fàttee wala trouble am jaxasoo amee ñooñu ñu liggéey te ñooñu loolu nañ yaakaar pour dund seen njaboot te ñoo mhm. ñi nga xam ne dañoo liggéey ak ñi nga xam ne dañu maal ak ñi nga xam ne dañoo doole te loolu lañ yaakaar mhm. ah, mhm. euh, nekk na lu am solo tamit wax ji ngeen doon wax sànq parce que jàmm tamit comme ni ñu ko waxee tout le temps jàmm si la lépp xej si loolu tamit ñu ñëw si lu am solo nekk six photo yi nga xam ne photo Serigne Touba la ñu amaloon ko si bés boobu yi nga xam te ne nii si lañ doon def pose première pierre bu Diourbel en 1918 démb barki démb nag jaayoon nañ ko fële sa Lyon nekkoon vente aux enchères si yooyu les photo tamit benn collectif Mouride ñoom ñoo ko mujjee jënd si lu toll ci 60 euros maanaam 40 millions de francs CFA. mu nekk loo xamante ne nii euh, am na solo torop si loolu xam naa dama lay bàyyi buur nga am loo ci indi rek laata ñuy euh, continuer bi lay waxtaan. waaw soxna Asel euh, mbir la moo xam ne jàpp nañ ne lu am solo la te dina am lu mu indiwaat ci taarixu li nga xam ne moom mooy Sénégal rawatina taarixu suñu maam. Mhm. jooju di Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul ak am solo li nga xam ne liggéey ko ci li nga xam ne moom mooy diine l'islam comme ni nga ko waxee benn collectif la boo xam ne ay taalibe murid lañ ñu lëkkaloo ak euh, ambassade France collaboration kon ba mun a acquérir li nga xam ne moom mooy euh, image yooyu la ñu ko soixante mille euros mu toll ci quarante millions de francs CFA ñu jëlee ko ko mais sama comme ni ko waxee sama mbokku murid yi moom xër nañ xam ne yaakaar naa bu un milliard sax dinañ ko jënd <laughs> bu jëloon un milliard sax di nga gis di nga gis te di nga gis di nga gis ñu jënd ko quoi waaw muy lu am ne am solo la muy lu am ne am solo la tey ñu gisaat ay image yu ki nga xam ne moom mooy Cheikh Amadou Bamba man de dama see bëgg wallaay bu ma gisee dama ci am contentement bu ma gisee bu ma gis sëñ Tuubaa ma lii jëm sëñ Tuubaa parce que jusqu'ici benn photo boobu rek lañ doon gis mu nekk ci ci sàkket bi noonu photo noir blanc boobu noonu waaw jusqu'ici waaw sax photo ah te te waaw waaw wala wala wala a certifié nañ ne c'est original jumtuwaay certifié c'est euh, mais comme li ma wax noonu quoi en en fait à euh, aspect boobu historique ak yooyu contentement boobu man am naa ko tax naa dem Sénégal yu bëri am nañ ci boobu li content parce que comme ni ko daan sax ici benn photo la ñu doon woon rek mooy bu weex boobu mu kaalaw nekk si kii boobu d'ailleurs boobu rek lañ doon wax ne moom la am comme photo officielle ak yu demee noonu kon tey itam gisee ba euh, ba gis lu mel nii aussi am ñoo xam ne man tam déggoon naa ci taarix ñu naan moom Sëñ Touba dafa nekkoon koo xam ne jëmm dafa tuuti jëmum dugg ci affaire yi mais man le contraire laa gis ak Fouta yi ah parce que bu ma gisee mu taxaw daanaka ñi mu taxaw yëpp da ngay gis ne moo leen gën a imposant léegi tax na kon man ma amaat beneen aperçu ci nga xam ne moom mooy euh, moom mooy Serigne Touba loolu mbégte daal laa sem wallahi dama si si bég di gis ki nga xam ne waaw ah, gis yaa gis ki si Amadou Bamba macha allah euh, le fait que nga gis ko ni mu taxaw nga gis ko mu wax ak gars yi après tam mu jiite fa ñaari rakka loolu itam di wane attachement bi nga xam ne suñu am religieux amoon nañ ko pour diine pour julli gis nga tey an événement la woon pose première pierre ñu ne mosquée Diourbel mhm. gis nga la fa a def kon wala boog ba paree la def moom mooy julli li nga xam ne moom mooy euh, ñaari rakk en tout cas événement bu bu bu am solo la mhm. bu neex la buy dundalaat li nga xam ne moom mooy taarixu Sénégal la ak particulièrement taarixu yoonu Mouride ak suñu maam jooju baax jooju Cheikh Amadou Bamba Xaadimu a jërëjëf buur mu nekk lu am solo Kalidou ma bàyyi la nga am sama naataango waxee rek mhm. mel na loolu ak fierté la pour képp koo xam ne jullit nga képp koo xam ne Sénégal euh, gis nañu six photos yi jàpp nañ ni photo original te photo yi ñu ngi ko ci ki nga xam ne euh, si album ki nga xam ne moo defar architecture euh, jumaa bi nekk fële si Diourbel architecte bi tubaab te tubaab la muy tudd Jean Geoffre jàpp ni le onze mars mille neuf cent dix-huit ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom ci la daal di posé première pierre photo yi sax soo gisee yaa ngi gis mu posé première pierre. ndeysaan waaw ñu ngi koy wane ndeysaan bi mu posé première pierre foofu la ko posé ensuite nga gis mu dox tuuti ci ci ci périmètre bi ensuite mu juli mu jiite ñaar ak yaa gis mu nekk ci wetu français boobu nga xam ne architecte bi. effectivement architecte boobu sax moom moo defar poste bi nekk Dakar. ok poste bu Dakar. voilà moom moom moo def architecture bi gis nañu aussi depuis mars 2020. moom bi bi ñu defee benn partenariat ak ambassade du Sénégal bi nekk fële ci France. dañ ko defoon en ligne en mars 2020. ça veut dire que deux ans mm-hmm. ba léegi ba mars deux mille ba mars deux mille vingt ñu daal di ko jënd ça veut dire que dañu defoon en mars depuis en mars deux mille vingt en deux mille vingt dañu clôturé huit mars keroog si lañ koy jaay mais li li li ñu def rek dañu bëggoon protéger photo yi quoi ah, photo day am droit d'auteur. waaw protéger dañuy bañ ñeneen di ko trafiqué. effectivement dañu defoon sax benn clause képp koo xam ne dañ ko trafiqué ñu alamaal tolloo cinq mille dollars. Mm-hmm. cinq mille cinq mille euros yow comme ni nga ko waxee cent mille euros lañ ko jaayee quarante millions. ci benn collectif boo xam ne ay daal di mur yi nekk France d'abord ba xam ba bàyyi la si Thiès waral mm-hmm. ay mais aussi am ay chercheur ñoo xam islamologue lañ jënd nañ ko ndax tamit ñooñu tamit dañu soxla yu mel noonu ci taarix ak ay dignité religieux ay kilifa yu mag yu nekk si yoonu murid tamit bokk ci ñi xam ne jënd nañu fa doy mm-hmm. te gis nañ tamit lu am solo même en France euh, fële ci Lyon am na benn site bu tudd euh, net net link euh, net link site boobu noonu dañu fa doy jàpp naa lu am solo loo xam te ku tedd ki yaakaar naa ni liggéey na loo xam ne doo am solo loo xam si mhm. ñëpp amaat beneen apprécié si ku tedd ki effectivement si beneen voilà si beneen gisee ko neneen waaw dafa am solo macha allah euh, allah jërë ngeen jëf si yooyu yaa yaatal nekk na lu am solo trop comme ni ngeen ko waxee rek mbégte la ngir képp koo xam ne gis na yooyu lay photo ba tey rek dañuy daal di continuer ak conseil de ministre bi nga xam ne amoon na 8 mars bi ñu jógee ak décision yi nga xam ne kii di président jot na ko fa jël xam naa Kalidou côté boobu dama lay bàyyi nga développé ci. waaw jërëjëf Astel mel na conseil des ministres defoon nañ keroog le 8 mars mu tombé journée internationale de la femme. Mm-hmm. seen seen seen bés bi d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, ñu profité ak dem local encore. mel na ki nga xam ne mooy ministre de la femme euh, di euh, ma di Moussa Diané mm-hmm. voilà moom daal di na profité ci occasion bi daal di def évaluation. da jëm ci ci ci li nga xam ne bëgg nañ ko ci ci li tukkoon ci assise nationale d'ailleurs mm-hmm. mooy maanaam ñu promouvoir entrepreneuriat féminin jigéen ñu am financement liggéey seen bopp mënal sen bopp daal ak autonomisation des femmes gis na aussi Macky Sall daal di ñëwaat ci tournée bi mu defoon Sédhiou quatre cent mm-hmm. milliards yi ñu ko diggee mm-hmm. plan d'investissement beeg ñi ko teeru mobilisation beeg kilifa diine ak ñu dina gonaas gis nañu aussi euh, Macky jël nañ fi ay lu am solo Mm-hmm. mooy Macky daal dina wax ni président bi nañu ree bu baax ci li nga xam ne mooy qualité de la consommation mm-hmm. maanaam ñi nga xam ne ñu produit yi nga xam ne ñoom ñoo leen koy jaay si marché bi dañu fexe ba ñu veillé ba ñu wàññi prix yi te prix ñu homologue ñu respecté ko mm-hmm. wax na aussi li nga xam ne mooy xam nga ah, léegi ñu dugg si ramadan koor gi jox nañ ki nga xam ne mooy ministre bi ay assurance pour ñu fexe ba marché bi nañ ko approvisionné lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu dund wala ceeb wala donni wala suukar lépp loo xam ne ak wàllu ay pomme de terre la demee na lépp loo xam ne dañ koy jëfandikoo rek dañuy fexe ba mu daal doy doy xam nga mu doy si marché bi ma nga ni ramadan li ñu néew jëfandikoo ñam dafa bari mm-hmm. Macky Sall mi ñu wax na loolu te aussi euh, ki nga xam ne mooy premier ministre bi euh, Amadou Ba mm-hmm. moom euh, def na benn évaluation li jëm ci wàllu stratégie de lutte contre la vie chère xam nga dund gi dafa cher te Macky Sall jot na benn plan national moom def na évaluation fan lañ toll ci wàññi gi ñuy wàññi dund bi am na am na aussi lu jëm loo am solo mooy li jëm ci wàllu révision liste yi Ah, jàpp nañu ne délai un mois la 6 avril lay tàmbali ba 6 mai ni nga ko koo xam doomu Sénégal nga bëgg ko participer à l'élection 2024 yi à travers Sénégal ak diaspora d'ailleurs sax à partir du 6 avril mu nga daal di inscrire euh, à part loolu gis nañu aussi mu def ay nomination ah, Mame Diarra Bèye nommé nañ ko directeur de loisirs mu mu wutu fa képp nekkoon nga xam ne dépend yeneen fonction si diaspora bi gis nañ aussi maître Mohamed Diop ñu nommé que euh, directeur des des Euh, ak prospection si niko microfinance euh, docteur Amadou Alioune Sarr aussi daal nañ ko nommé euh, directeur de la microfinance ak ki nga xam ni ak benn professeur boo xam ne daal di lañ ko nommé mu nekk professeur titulaire de première classe ci université Cheikh Hamidou Kane ah yeneen nomination ay quatre nomination yoo xam ne def na ko par décret mu nekk ay décision yu xam ne yoo am solo la loolu daal laa ci wax jërëjëf Kalidou mu nekk yaatal yu am solo yi nga indi si loolu tamit dama fay jaarale di souhaiter ministre de la femme Fatou Diané Gueye ma du ko souhaiter moom tamit bonne fête de la femme xam naa si la ñuy jàll ba tey ñëw si Guy Marius Sagna ah boobulee protestation bi nga xam ne déposé no ko fële ca ambassade bu Tunisie mujjee na ko déposé sax la ñu wax ndaxte njëkkoon nañoo dem pour déposer boobulee dossier mais amoon nañ fa ay jafe-jafe ba ñu mujjee woon leen fa teye si loolu yëpp dama lay bàyyi buur nga indi si ay euh, yaatal. soxna Asel comme niñ ko waxee xam nga gannaaw kàddu yooyu nga xam ne njiital euh, Tunisie di kay seet yëkkati woon na ko. muy ay kaddu yoo xam ne nag ay kaddu boddi xeet lañ ko jàppee ay kaddu yoo xam ne mbirum mm-hmm. raciste la ba ñu bëri jugoon it euh, ñaawlu ko moom Guy Marius Sagna ak FRAPP bi nga xam ne dafa bokk ñoom it dañoo jógoon ñaawlu loolu wante yemuñ si ñaawlu ko rek dañoo bëggoon une première fois sax tenir benn sitting ci li nga xam ne mooy maanaam toogaanu ñaxtu euh, toogaayu ñaxtu ci euh, bopp li nga xam ne moom mooy ambassade de Tunisie bu Dakar ñu lankal leen ko bañ leen ko lankalee nag ñu ne kon daal nañu dem déposé ba ab lettre de protestation ab lettre boo xam ne dañ cay bind la nga xam ne moo leen métti euh, wax ko wante dans un premier temps gis nañ ne bi ñu demee di ko déposé euh, jotuñu sax yegg ca fa nga xam ne kon moom mooy ci ambassade ba gars yi dañ leen baare euh, ba sax am ñu ngi ci tegoon loxo arrêté leen jàpp leen wante nag ñoom taxul ñu bàyyi dañoo continuer seen xeex démb ñu demaat ngir déposé li nga xam ne moom mooy lettre bi wante démb bàyyi nañ leen ñu déposé li nga xam ne kon moom mooy seenu ba lettre muy lettre boo xam ne nag yëkk nañ ca lu mel ne xamee ki nga xam ne moom mooy njiital njiital Tunisie gannaaw ne yëkkati ko yëkkati na ko jëmale ko ci ay migrants yu Afrique euh, yu Afrique subsaharienne euh, déposé nañ kon li nga xam ne moom mooy seen lettre boobu mais li si mën a wax daal mooy man damaa gis ne euh, li ngay liñ li ngay njëkkee mujjee ko lii daal pour man waaw pour man li ñu leen bàyyi démb ñu dem déposé moo nañ def noonu waaw. kon waaw waaw maanaam coow ma coow lépp am daanu coow du am dañuy jàpp kenn. gis nga démb dem nañ bàyyi nañ leen dem nañ déposé nañ seen lettre ñu wan leen ne recevoir nañ ko estampé ci kii bi. pour man loolu moo gënoon sax coow li yëpp nga xam ne coow li yëpp nga xam ne am na si quoi coow li yëpp nga xam ne si gënoon na ko. Euh, seen acte euh, acte boobu tam man ni ma ko gisee damaa gis ne euh, lu normal la. normal la tey seen ay moromu Afrique seen ay moromu doomu Afrique euh, nekk ci yooyu le jafe-jafe ba tey sax nga gis ñu réew yu bëri ñu ngi jël ay mesure bokk na ci euh, indiwaat seen i doom Sénégal fi ñu toll ci li nga xam ne autorité wax nañ ko moom mooy ñun subiré guñ fa daal benn menace wala ay yu demee noonu wala boog ñun laal ñoo violence lay demee noonu ba teg nañ cellule de crise it pour suñu doom ba bëgg ñibbi si ak ak yéen mel taxawaay boobu tam ñu ngi fay rafetlu euh, ñu ngi fay li nga xam ne moom mooy taxawaay autorité yi kon lu ñaawlu boobu ñëpp a koy ñaawlu ñoom peut être ñoom dañoo gën a fés ñoom frapp ak yooyu seen bës daa gën a fés ñoom ngi message ñu gis ko ñëpp lu ñuy ñaawlu la ñëpp lu ñuy ñaawlu la tey dina tax tey bu ñaawlu bi amee ba bëri ci àdduna bi yëpp dina tax tey ba kay seet moom ak ñu mel ni moom buñ jógatee di yëkkati di bëgg a yëkkati kon kàddu yi ni xoolaat bu baax a baax ana ana naka lañ ko war a waxee quoi ma bàyyi la nga am loo indi ci boobule Euh, lettre bi nga xam ne ñoom Guy Marius Sagna ak ay ñooñam daal lañ di ko déposé fële ci ambassade bu Tunisie. jërëjëf Astel mel na comme ni nga xam naa la nga waxee rek maanaam euh, fi nga xam ne moom lañu mujjee foofu la ñu man jàpp naa ni ay doomu Sénégal la ñoo xam ne yoruñu arme yoruñu xeer dañ ñëw rek pour pour wane seen naqar déposé de postation ñu tere leen après finalement ñu mujj leen bàyyi man jàpp naa ni fekkoon Sénégal moo def loolu. man de jàpp naa ne Séné tunisiens yi nekk Sénégal daañu manifester. bien sûr man man loolu laa jàpp. bien sûr fekkoon doomu tunisiens yi nga xam ne ñoo ñoo ñoom lañu bund xataal Sénégal comme discours mel noonu. Mm. doo doomu tunisiens yi nga xam ne ñoo ñoo nekk Tunisie daañu manifester. man loolu laa jàpp jàpp naa ne nag suñu dirigeants yi xam nañu am tuuti complexe. parce que même même même soo xoolee président Gambie bi dégg naa mu ni président tunisien lu mu wax garaawul gars yi interprété façon beneen beneen façon ça veut dire que suñu dirigeants yi d'une part aussi am nañu complexe. parce que jàpp naa ni Guy Marius Sagna moom ànd ak société civile ak yenn mouvement yu mel Africa First ñu mm-hmm. ah, daal di lire lettre de protestation mujj sax yegg daaw d'ailleurs parce que fépp dañu ko problème la parce que Sénégal fekkee si biir territoire amul ah, droit exprimer exprimer dañu problème la waaw ah, man jàpp naa ni war nañ gën bàyyi xel parce que di promouvoir xam ne parce que d' abord avant ngay am ouverture nga koy protéger ñi xam ne ñooy sa mooy mooy sa tout voilà la waa Kalidou jërë ngeen jëf si yooyu le yaatal yi ngeen indi si loolu xam naa dañuy ñëwaat si collectif des victimes des événements de mars yi nga xam ne jot nañoo saisir cour d'appel bu CEDEAO ngir ñu indi ay leeral si 14 morts yi nga xam ne jotoon na fi am si événement mars 2021 yi. waaye Asel lu euh, mel na ñi nga xam ne ñoo lorule si événement mars yi daal dinañu taxawal benn collectif ensemble ah ma ensemble réclame justice. li ko waral nag mooy keroog 3 mars mu nekkoon anniversaire presque deux ans événement yi mm-hmm. eh, gis nañ ñoom daal nañu jël kalaame dossier bi ca cour justice bu CEDEAO mm-hmm. te te loo am solo parce que jàpp nañ ni li nga ne mooy traité communautaire yi traité communautaire yi wala traité international yi si wàllu droit jàpp nañ ni moom moo gën a koy constitution suñu réew yi mm-hmm. maanaam CEDEAO suñu la benn décision mu ni mu ni Macky Sall defal ni Macky Sall loolu la war parce que traité communautaire ak traité international yi ñu ngi nekk au dessus mhm. soo xoolee ñoom euh, bi événement yi amee deux mille vingt et un mars avril Macky Sall waxoon nañu day créer benn comité d' enquête indépendant mhm. boo xam ne dañoo tànk ñi nga xam ne ñoom ñoo loru si wàllu xaalis waaye tamit ñu leeral lépp képp koo xam ne jàppal nga bokk ñi nga xam ne yaa buum doomu Sénégal yooyu ak côté boobu munti far mhm. ñun daal teg si yoon mais gis nañ loolu amul fekkee benn benn ñaar yoo xam ne def nañ dérangement bari na ñoo xam ne ñeneen ñu gis ñi te tamit li ñu ñaan mooy justice am te soo tamit image tamit euh, dafa choquant parce que am na benn tailleur boo xam ne 32 ans la am Cheikh Wade il est de Parcelles Assainies gis nañ image yi mu 2021 mu créé woon coow lu bari ndax ñu gis policier bi daal di visionné tiré à bal si image moo nekk bi nga xam ne moo si gënoon fës ñoom jàpp na ni dafa nekk loo xam ne dafa dafa dafa leer ah jàpp naa ni nag euh, lu mel noonu soo amee dañ ko leeral parce que ñoom tamit. au moins ñu mën def seen deuil en toute tranquillité mm-hmm. dossier boobu war nañu mën vider ndax boobu bi wala ñu dee pour rien du tout mm-hmm. et tamit euh, CEDEAO tamit euh, mën naa wax ni ñoom euh, li nga xam ne mooy seen traité communautaire yi moo nekk au de la commission suñu jëlee dara état Sénégal daf war appliquer mm-hmm. à la lettre loolu laa laaj na wax sama seet jërëjëf la nga ñëwaat si événement mars yi nga xam ne jotoon na fee am ba ñu amaloon ci quatorze morts waaw man moom loolu yaakaar naa c'est simple euh, damay nekk damay je me mets damay damay jox exemple tey ku nekkoon ci place u famille ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen seen seen ay doom euh, yaakaar naa même réaction ko ñoom ngay am tey peut-être euh, damay le fait que dem nañ ba gis ne ba justice su Sénégal yéex na ci mbir mi wala defu ci liggéey bi mu ci a def ba tax ñuy dem saisir li nga xam ne moom mooy justice su CEDEAO pour man loolu sax doy na waar lu doy waar lu doy waar la doog nañ ba ba léegi euh, état annoncé woon na ne dina ci amal ab commission d' enquête euh, comme ni nga ko waxee boo xam ne bu neutre lay doon ñu kii mbir mi mais it euh, boo juumul ñaari la. Mm-hmm. waaw ñaari at ba léegi peut être enquête xanaa waroon nañ fi am tiir si ay résultats ñaari at boobu ak léegi yàgg na quoi boobu ak léegi yàgg na comme ni nga ko pour nag ñu mën a def seen deuil peut être tranquillité quoi maanaam tey dëj ñu xam ne tey maanaam daal. donte naqar naqaru ñàkk seen doom waa am nañ voilà tey ñu defee li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, yoon bu defoon liggéeyam tey ba affaire bi affaire ñu classé ba ba ñu situé xam ne kii moo def lii kii moo def lii xam ne nañ xam ne nii liñ leen war a dédommagé ñoom ñëp ñu ñu dédommagé donte bakkan sax kenn mënu koo kenn mënu koo jënd mais peut-être lu di defalee la mm-hmm. day normal tam ñu defal leen ko yaakaar naa la loolu lépp bu amoon kon tey peut-être lii ñu def nii bay jéggaani feneen di woote wolo euh, mën na cee mën na cee ñàkk am en tout cas bu mën demee man damay comprendre li nga xam ne moom mooy euh, seen soutien damay comprendre kon euh, démarche bi nga xam ne ñu ngi koy def nii quoi dëgg la buur mu nekk lu am solo ndax ndaxte tamit euh, dafa nekk lu metti loo xamante ne nii yow bu dee sa doom nekk ci benn famille nga xam ne boom nañ ko ci yooyu les événement du neex ci xool tamit nga toog te gisoo justice euh, def ci dara nekk na lu metti ñu di leen ci masaw bu baax a baax ba tey rek xam naa dañuy euh, jeexalee ak mbirum sport si loolu Kalidou ma bàyyi la nga ñu euh, ñun si prestation yi nga xam ne prestation yu am solo yi nga xam ne kii di Kalidou Koulibaly mu ngi koy amal fële ca Chelsea ak kii di euh, Malick Thiaw. waaw jërëjëf mel na ci wàllu sport bi tey dañ defoon zoom si performance yi nga xam ne doomu Sénégal di Kalidou Koulibaly nekk ca Chelsea FC. ca mm-hmm. Angleterre euh, gannaaw bi mu Chelsea daal di amee sax billet pour qualifier li nga mooy quart de finale bu Ligue des Champions. ci match aller ba eh, dañu daal di di leen daan di leen jiitaloon benn bal ci dara Dortmund retour bi ñu daal def li ñu tuddee remontada de deux bi à zéro mhm. ah, gis nañ aussi Kalidou Koulibaly am am notation bu baax maanaam défenseur boo xam ne am sept virgule sept sept point trois sur dix ça veut dire que dafa match bu rëy te mhm. jàpp nañ Kalidou Koulibaly bokk nañ ci xam ne moo tax Chelsea daal di qualifié quart de finale yi gis nañ duel yi nga xam ne dafa gagné maanaam Dortmund attaquant bi gën a xarañ di mhm. yëpp Mm-hmm. daf intercepté ka Liverpool dafa gagné ah, duel duel au aussi quatre duel yëpp yu Sébastien Haller am ak ki nga xam ne mooy Bellingham nga xam mooy yor jeu dépositaire de jeu si a wax ne bal yëpp bal yëpp ah, duel yëpp dafa gagné te dafa nekkoon koo xam ne dafa nekkoon partout Dortmund su demee rek bi daal di dugal rek gis ka Liverpool teg tànk jàpp ni ka Liverpool ñu ñu ngi si média yi ñu ni léegi xay Koulibaly daal léegi daal nekk loolu daal mais gis nañ ne daal forme bi nga moom lañ xamee woon bi mu nekkee Napoli

ay ay waa juróom Sénégal lañ dëkk Malick Thiaw dëkk fii ci Yoff loolu lañ jàpp euh, moom nag juddewul Sénégal ñu préciser que moom mu ngi juddoo ci Allemagne mm-hmm. dafa nekk koo xam ne vingt et un la am xale la euh, ginnaaw bi mu fubalee fële ci Bundesliga ci Allemagne ci Schalke 04 mu doon sol numéro 33 léegi mu nekk ci Milan AC mm-hmm. te di di di titulaire léegi maanaam défenseur la da gis nañ aussi équipe am daal na qualifié quart de finale Ligue des champions contre Tottenham ale bu ñu retour ñu def zéro zéro te gis nañ mu am notation six virgule trois mm-hmm. défense à trois bu Milan donc défenseur bu mel noonu jàpp nañ ni Sénégal war na teg gët ndax Abdoulaye Diouf Baar xam ne confrère journaliste nekk ci groupe Futurs Médias ñene Sénégal su gaawul Allemagne mën na jël équipe nationale mën na jël ndax bi léegi Sénégal mën na jël parce que football bu équipe nationale mm-hmm. nekk na koo xam ne actuellement am nationalité Allemagne la am deux nationalité nationalité Finlande la am def gis nañ koo xam ne koo xam ne koo xam ne Sénégal war na jërëjëf Kalidou si yooyu lay leeral si wàllum sport si loolu ba tey ñu jeexale ko sport rek di suñu gaynde yi amal ab jàkkaarloo suba ak waa Gàmbi mu nekk finalu euh, CAN U20 nekk tamit loo xamante ne nii ñun Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar ndax mooy ni ma koy waxee tout le temps rek euh, gaynde yi dañoo tàmm léegi di ñu indil ndam ci loolu tamit ñu ngi xaar beneen coupe incha allah ba tey Kalidou ma bàyyi la nga continuer si sport bi laata ñuy tëj. mel na suba la final final kii bi final CAN CAN U20 mhm. diggante Sénégal ak Gambie mel na ñaari réew yoo xam ne réew frère lañ mhm. waaye nag suba si terrain bi nag amul maye dara mhm. jàpp naa Sénégal coupe bi la ñuy wut te nekk dynamique de victoire comme ni ñu ko naa ne équipe na mun jël ndax am nañ lépp pour jël ko d'ailleurs mën nañu compter ku mel ni Lamine nga xam ne def na match bëri continue si def doublé ak Samba Diallo nga xam ku xañ lool macha allah gars yi ñu wax sax Sadio Mané nekk ci dynamique mu kii man jàpp naa ni am nañu lépp incha allah ku dugg ñu bis Dakar. incha allah ñu ngi koy euh, xaar boobule coupe ndaxte gaynde yi tamit ay jàmbaar lañu lu ñu mënti wax ba ñuy football ba tey encaissé ñu benn bi loolu tamit ba fii mu toll daal suñu xel mu ngi dal ñu toogee ñu ñuy toog di dundee yaakaar rek Bour Sine incha allah. waaw man ci final boobu rek la finalu li nga xam ne moom mooy CAN UV bi gannaaw bi nga xam ne nag euh, suñu gaynde yi def nañ parcours sans faute. macha allah ba yegg fi nga xam ne moom mooy euh, final bi euh, liñ leen di ñaanal rek mooy comme ñu ñu fubal ko jël li nga xam ne moom mooy euh, boobu la final ndax bu ma juumul ci catégorie boobu yaakaar naa jëlee ko ñu fa coupe ah, kon jëlee li nga xam ne moom mooy coupe bi mu ñëw complété coupe yi nga xam ne am nañ ko. mbir mi di wéy rek quoi neex neex instant moom dañoo nekk ci benn dynamique boo xam ne yàlla bu ñu ko dara yàqal nañuy wéy rek di wéy di wéy ba ba ba ba bëgg mondial bi man instant bi laa bëgg. vraiment nga <laughs> jël léegi nga demee. man bi laa bëgg mondial bi faaw ñu jël ko quoi. te tey bu ñu si dynamique bii ñu nekk moom. mën nañ dem ba jëli mondial bi quoi. incha allah. boobule comme ñu di ko xaar dimanche euh, samedi suba la suñu gaynde am jàkkaarloo ak euh, gàmmi di leen ci ñaanal ndam bu baax a baax xam naa fii la ñuy yem si yor yoru sene info ma di leen euh, bàyyi buur ma bàyyi la nga tàggatoo ñu daal di tëj ba lundi incha allah. di la jaajëfal bu baax soxna Astel di jaajëfal sama naataango Kalidou di jaajëfal it suñu cadreur Abdel di jaajëfal mbokk internet yi nga xam ne kon saa su ne ñu ñuy bàyyi xel di leen jox dikk daje altine. ak mhm. beneen numéro rek bu yor yor seen ay jërëjëf Bour Sine di la jaajëfal yoo tamit également si yooyu lay yaatal yu am solo yi ngi ñuy indil saay su nekk Kalidou ma bàyyi la nga tàggatoo ñu daal di tëj. waaw ah, Asel maa ngi lay remercier ci présentation bu am solo bi ak ni ñu koy defee ah, di profité nag def benn kii bu ndaw rek euh, ci 8 mars ñu génn mhm. di félicité bu baax euh, ñi nga xam ne mooy les jeunes femmes euh, braves de Yoff. Mm-hmm. ci interview ci keroog kii bi ñu def gis naa inter gis naa interview bi te gis na jigéen ñoo xam ne jàmbaar lañ te war na leen mun jàppale maa ngi si occasion boobu di leen félicité mm-hmm. di uh, gërëm bu baax sama naataango ku mun doo fen ci mm-hmm. analyse pertinente yi ak taxawaayam ak ak uh, ki nga xam ne mooy suñu cadre ci réalisation bi ndax liggéey bi métti na di gërëm internet yëpp ñu ngi suivre à travers seneinfo point international te di leen uh, jox rendez-vous si fan yi di ñëw si àllande jërëjëf Kalidou yow tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax si euh, commentaire yu pertinent yi nga xamante ne nii yaa ngi koy yaa ñu koy indi indil saay su nekk mu nekk lu am solo di leen jaajëfal yéen ñi ngeen xam ne bokk naa ak yéen bi le plateau di jëfal Abdel Diallo suñu caméraman bi di jaajëfal internautes yi également yi ñuy seetaan à travers seen info international ak seen info point net di leen jox dig daje altine incha allah jërë ngeen jëf. neefoo xibaar yu wóor te leer ci bile jamono restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor te leer ci bile jamono fii la mburu bi tàngee fii lay xayam xayamee xibaar yu wóor te leer ci bile jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër te leer ci bile jamono